mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bu ñuy fàttalante dañu koy fàttal dañ koy tënk ci kàddu gi sunu borom wax ne sama baat raw na ma sama baat raw na ma nag bu ko nit ku ñuul waxee noppi na ca duutu ci dellu gannaaw loolu lu muy tekki mooy ba mu waxee ci alquranul karim ne eh, moom subhanahu wa taala nii nit ñi bu leen yàlla dafee buur buurub adduna ñami àndal ñu di ko aar di ko aaral am réewam doole dañuy yor kàttan ak fitwa sunu boroom nee na moom moo leen ko ëppale fuuf te ñam ca yor ku leen song daanu te kuñ songu waxaale wuñ ko dañ koy faagaagal wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalina innahum lahum almansurun wa inna jundana lahum alghalibun ku leen songu daanu fii ci àdduna daanu àllaaxira sawara loolu nag liñ ciy dégge mooy am na ci lu ñu mën bët sunu bët xel jàpp ko te duñ ko fàtte am na ci loo xam ne it euh, alxuraan moo nuy wax nu mu demee woon ak nu muy demee ëllëg bu ñu demee ci alxuraanu karim danañ ca fekk sunu boroom di wax ne yàlla am na ñu nàngu ñu jatu taxaw jonn lu mu leen wax baat du ca topp dañu koy sottal nam ko soxlaa te duñu ko laaj lu tax nga di ko lu loo jublu ak lu ko waral wa lillahi junudu samawati wal ard wa kana allahu aliman xakima loolu bu mu jaaxal kenn ndax yàlla xam na lépp te xereñee na lu ne lu ne ko nu nekk liñ ciy waxtaan nag tey mooy suñu doxee ba kattanu adduna euh, taxaw jonn ci far baatub laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ci kaw suuf ni mu koy def mooy day faagaagal nit ñi koy wax waxe loolu moom gàtt xel mënu koo weesu maanaam mooy ak mbaadoola dëgg te baadoo la nee nañ du jub gàcce mukk te àggu ca bokk yi yàlla moomam ñépp kum neex ak kum neexut kum neex moom day noppalu wéeru ci moom bàyyeeku mbiram xam ne lu jógewut fa moom ak neen la foofu ku fi taxaw du tiit du jàq du jaaxal waaye kuy def léeg-léeg mu warante ba xam ci moomeelu yàlla gi la bokkam déet du jóg ci fitna saa su nekk ciw xelam lay nekk aaya boobu walillahi junudu samawati wal ard wa kana allahu aliman xakima danañ ci dégg mu leer nañ ñi ne yàlla tudd na asamaan tudd suuf si foofa daa am ñu fa nekk nangu jatu di déglu ndigal loolu euh, feeñ na ay yoon yoon ci taarix taarix mooy la jàll am na ci alquran ku yàlla di wax ne Euh, amin la tudd amin aminul wax tudd ko ruuxul qudus muy jibril alayhi salaam mook ñam fa bokkal nekk day mel nekkoon ci asamaan am nañu jatu di nekk rek ndigalul suñu boroom moom moom ab liggéeyam la ci gën a fës mooy yàlla daf ko daan yónni ci ay jaamam yi nga xam ne dañoo ne fi suuf jatu ba jekk di déglu yàlla nee na rek bañ jóg jëm ca am na nag ñu ko jombale ku nekk naan du wàcc ku dul ab yonent waaye boo demee ci suratu maryama wadkur fi lkitaabi maryama id intabathat id intabadat min ahliha makanan sharqiya fattaxadat min dunihim xijaba fa arsalna ilayha ruha ilayha ruuxana fa tamathala laha basharan sawiya yàlla mas naa yónni sayidina jibril alayhi salaam ci koo xam ne du ab yonent suñu def naa Mariama doona gudoon ab yon doonatub yonent ba tey ji yónni ca yónni ko ca wax ko la muy namm ci moom ba mu sotti coleet ñëpp xam nañ sayyidina Isa alayhi salaam ci dégg mu ngi ne wett ci alquran moo ne sayyidina Jibril daana ñëw di ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi di ko indil alquran bi ñuy yëjji alxuraan naan kii li muy wax nangam ak i nangam yàlla def ko tontul moom sallallahu alayhi wa sallam ne innahu la qawlu rasulin karim di quwatin inda di l arshi makinin mutaain thumma amin wa ma saaxibakum bi majnun riwaayaat yi nee nañ sayidna jibril moomu nee na lu ko ñu ko yàlla mës a yónni ci ñoom xolam sedd na ci guy waaye nag xamutoon na yàlla da ko jàppe amin ba di ko yónni ci amin xamutoon ne noonu la ko yàlla jàppe ci yónt bi la ko xame kon yàlla am na ci kaw ñu jatu ba jekk di nekk ndigal ñooñu mas nañoo wallu si ndawi suñu borom yi yabaloon ci kaw suuf fekk ñoom yàlla waajal ne ñu jatu ba jekk di xaar ndigal xaswatu euh, badrin al kubra bañ demee ba yëf ya doy waar ay malaayika la yónni fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayadahu bi junudin lam tarawha wa jaala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatu llahi hiya al ulya wallahu azizun hakim bam leen yabalee ñu wàllu si jullit yi xamuñ woon nu ñuy rayee nit xamuñ ko woon sunu boroom moo leen wax ne fadribu fawqa al a'naaqi wadribu minhum kulla banaan ku bëgg nit jóge fi da koy dóor ci doq walla nga damm fi yax yi saxe fu bu yax saxe ak moroom ji rek fu mu jàppaloo rek nga damm ko mu dee xamuñu woon nu ñuy rayee nit kon ñoom dañoo jot ba jekk xamuñu fu ñuy yendu xamuñu fu ñuy fanaane ñooñu nag suñu borom jeexalu ko ba fi mu ne daa am ñu ne ko nekkal ci kaw suuf ñoo xam ne ñi lu ne kët na jonn ñoom taxaw nañ balaa kenn jaar ci lislaam jàll da nga jaar ci seen kaw jàll ñooñu nag bokk yi di ca tenq kenn par kenn di leen rey du tax pas-pas bi jeex du tax mu jóge ci kaw suuf daf koy dolli ana junudu samawat wal ard mooy malaayika yi ci tënk junudu samawat waa junudullahi fil ard mooy ñan mooy jaamam ñii nga xam ne jatu nañ ba jekk gisuñu lenn lu dul yàlla xooluñu lenn lu dul yàlla dégluwuñ lenn lu dul yàlla ñooñu ñi ci jiitu mooy ar rusul ambiya u topp ca awliya u ya topp ca al atqiya awliya u ya kese kese topp ca ñooñu nag bu ñu leen bëggee xam ci kaw suuf si yomb nañoo xàmmee lool mooy koo xam ne foo ko fekk lu baax rek lay digle rusu ca kenn ragalu ca kenn moom la alxuraan di wax ne wala yaxaafuuna fi sabilillahi ku ci xam kenn rek jàppal kooka ca la jundun min junudillah waaye koo xam ne it dafa taxaw mu ci fum gis munkar njekkare rawati loo xam ne lislaam ci boppam lay laal su ko laalee buñ ko teggiwut mën na caa teg loxoom suñ ko teggiwut mën naa bës suñ ko teggiwut mën na koo jéem a puus eh, képp koo xam ne daf fee taxaw taxawaay yëpp buñ ko bëgg buñ bëggee laal lislaam mu ne déet bu mu fi amee kooku junut di junudillah fil ard waaye mooy ñi nga xam ne yit boo demee fañ dëkk luñ def lu ne xam nañ fañ ko teg xam nañ fañ ko teg seen yoon ci luñ cay ame waaye nag fu ñu laale lislaam wala ñu joxoñ lislaam am xel dana dem ci ñoom foofa nag bokk yi moo mat a jéem a bokk te am nañ ci kaw suuf si euh, boroom Tuuba mi ngi ñaan yàlla mu boole ko ca ñooña ak ni mu toll lépp kon bokk ca du lu yomb am nag njëg am na ci téere bu wax ne washhad li al yawma bi kawni abdaka xadimahu inda jamici jundika ala nabiyika rasuli abdika afdali man ilayka qaada jundaka maa ngi lay seere loo ne eh, sas njaam laa yow tabarakta wa taala it waaye fas yéene nekk nag xadim ci mbooleem ku jattu taxaw temm déglu sa ndigal waaye nag yonent bi sallallahu alayhi moo ci jiitu moom mi nga xam ne daawud wax dem leen ma dikk waaye danaan ay ci leen dem jiitu yi topp ci moom kon bokk bokk yi foofa bokk ca lu ko mat la sëriñ bi kenn dax koo ñaan kenn xamu ko kenn gënu koo xam lu ñuy ñaan waaye ñaanoon yàlla boole ko ñiy jatu saa su nekk ba bu suñu boroom ne ay ca mu ne fojjet liñ naan fabu leen moom bañ koy wax soccet jekkoon ma waaye bokk yi yëmbut rekk ci waa asamaan ak waa suuf di aw nit waaye am nañu ne ci suuf ñoo xam ne it dañoo jatu ba jekk di xaar ndigalul suñu borom li mu leen jox ñu jëfandikoo ci ñu di leen tuddee ay jamaadaat mooy ñi nga xam ne foo leen fekk fa nga leen di bàyyi boo fa déwaatee feeg juróom fukki atit fa leen di fekkaat moo ne ñooñu day lu ci mel ne doj yeeg asamaan seeg suuf seek jant beeg weer yooyu it kenn ku ci nekk daa jatu di ndég ndigalu suñu borom jant bii nga xam ne ñépp ko xam fépp lay tiim am na jàmbaari suñu borom di doon jëflanteeg ay nanam jant bi bëgg a so yàlla téel ko jant bi jox ndigal jant bi mu taxaw jant bañ a sox ndax moo jekk woon te daa war a daan kon yàlla yàgg naa taxaw waayam moo ne weer wii it mas naa xar def ñaari xaaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko ne woon su fekkee li ngay wax noonu la demee xaral weer wi ñu gis bokk mu ne yàlla na weer wi xar yàlla na weer wi xaral mu ne tàcc iqtarabat asaatu wa nsaqa alqamar wa in yaraw aayatan yuridu wa yaqulu sixrun mustamir moom la sëriñ bi wax ci ab téeréem ne kooku li am ci ay xar baax ña ko jiitu woon mosuñu ko def ñi koy mujj it ñii ñëw gannaaw mit kenn du ko ci man euh, mas naa doxloo garab mas naa xar weer lahu min alxawaariqi maa lam yaji li saabiqi wala yafi li laaxiqi fadlan min almuqaddimi minha salaamu alxajari alayhi mashu shajari lahu inchiqaaqu alqamari bi dil baqa walqidami yooyu nag li ko waral mooy wane ne yàlla mi yónni mi yónnee ñi mi yónni làmbutuwuñ ci li ñuy wax ndax daf leen di boole ak yoo xam ne kenn du ko man bokk yi ci année soixante-dix soixante-dix-neuf quatre-vingt am na ci réew yi àdduna bi xew léegi réew mu mag ci doole àdduna nii waaye tuuti lool ci pas-pas am na bis mu jóg yabal ay fafal naaw ñu war a gàll tooke ci barab yàlla def fa kenn koo xam ne daa jatu woon ne fojj di xaar ndigalu suñu borom ñëpp daw làqu si ci moom ne ko gaa yaa ngi ñëw di bu fas yéenee wàcce gàll ay tooke ci suñ kaw mu jël kurusam rek ne tocc tocc lenn ca lañ ñenn ca ñu yabaloon juum kenn ku nekk dal ci moroom ñu yam fa bokk yàlla ma ko doon def nag di ko def ci ay yonent di wane ay xarbaax ak kéemaan jóge wu fi ku ci sikk sàkka xoolaatal sa pas-pas waaye ña ko gëm xam nañ ne li ñuy ñaan guddig bëccëg mooy bokk ci ñu yàlla di wax ne alladina qaala lahum nnaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakil moo tax bokk yi Euh, lislaam su amoon ay bokk mel na ni bokkam yu bari daaw nañ ko ba mu des mel ni mbokk moo xam ne limaale wuñ ko sax ci mbokk yi dëkkandoo rek lañ ko jàppe waaye dëkkandoo ko am solo yonent bi sallallahu alayhi wasallam day nee na jibril daana ñëw di ko wax dëkkandoo ba mu jàpp ne dana ko mas a wax bis na ko dëkkandoo su faatoo na ko dëkkandoom donn waaye ba muy wax ne jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale ak dara bu ngeen ca noppee ngeen fexe ba am seen ngërëmul way jur ak ay bokkam ak seen bokki baay waaye dëkkandoo la ca teg bokk yi bari na luy xew ci koñ loo xam ne kenn du kenn nañ nag ba ay bokkam ñëw dëkkandoo yi ñëw fa jëkk bari nañu sax ñoo leen ñoo koy yëg te ñoo leen koy jëkkal moo tax mbokkum lislaam moom nga xam ne moom la lislaam des ci kaw suuf ca xare Badr yonent bi dana yàlla mbooloo mbooloo sii day boo fexee walla nga maandu yàlla sax du fexe day dogal muy dog waaye soo maandoo bañ faagaagal leen dootoo am kenn ku leen jaamu ci kaw suuf di ñaan di ñaan ba kaala ga wadd Seydina Abu Bakar foor ko tegaatal ko ko ca ne ko na sam xel dal yàlla dégg na li ngay wax te daan la wàllu moo tax tàggat gi suñu boroom tàggat ay bindeefam yu ne ci kaw asamaan bañ jatu di xaar ndigal na leen jullit yépp woo xam ne lislaam soxna la leen waaye ñi jatu te na ci kaw suuf it na leen jullit yépp woo kuñ ca am yaakaar ndax lislaam soxla na leen waaye bokk yi tàggat gi suñu boroom tàggat aw nit ak i bindeef bañ ne fojj bañ na jonn di ko taxaw jatu yëmut ci asamaan si ña ca nekk ak ñi ne ci kaw suuf kese kese di aw nit tudd na ay jamaadaat léegi waaye géej gi fi mu ne nii boo déggee ñu ne la diw def na nangam ci géej gi lu kenn mësta def yàlla mën na lu ko raw xanaa dañoo jàngut alquran suratu shuara jànguñu xanaa sayidina Musa alayhi salaam ak ñam àndaloon ba ñuy dox ba agsi ci géej gi géej gi nekk ci seen kanam noon bi nekk ci seen gannaaw lu yàlla wax géej gi lu Seydina Muusa jëfandikoo ci yow nanga ko nangu wa awxaynaa ila Muusa an idrib bi asaaka al baxra fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi al azim wa azlafna thamma al axarina wa anjaynaa Muusa wa man maahu ajmaina thumma agraqna na axarin inna fi dalika la aaya waaye nag wa ma kaana aktharuhum muminin kon suñu boroom mi ngi fi ba tey dëkkandoo ji lislaam am ñàkk nay bokkam moom amatu ci mbokk genn dëkkandoo la am dëkkandoo jooju nag ay ndog ment jongoro nañ ko lu xam ci ñaan na ci jóg ndax bu ñu fa jógee li wér sa wóor mooy du ñu am lañ bëgg ca moom waaye mën naa am bu ñu fa jógee dem ci keneen te wax nañu ne su la xiiboon akum lag bëggee sot dalal ci ponkal mi dalal ci siglag mi rek xiiboon bi daw waaye dañoo bëgg a jëkki siglag mi yàlla na yàlla na saxal seeni pexe duñ ca am ndam mukk moom ndax firaaw na dooleem ja kenn du ko amaat ci kaw suuf benn bis la ñàkk lépp faatu dem sawara moom ñam àndaloon ñëpp moom la suñu borom tënk ci benn aaya wa saxara lakumu leyla wannahaara walchamsa walqamara wannujuumu musaxaraatun bi amri yàlla moo tàggat guddi ba fu neex dem ci guddi gi doo gis dara dara du la gis moo tàggat bëccëg bi guddi gi bu ñu ko waxee tu tuddaal nañ biddiwam yi ak sedd bi ciy nekk te du lor kenn ngay tegtalu ci biddiw yi mu ne fa nongu di dox ci sedd bi doo soxla lenn lu lay upp ba ba ngay àgg loolu yàlla moo ko ca jox ndigal mu ne dégg jëfe ndigal waaye bëccëg bi it fooy jëm doo soxla làmp doo soxla ak niit day leer nañ doone doone it abal ma ma xool te fekk yaa ngi yori gët raw nañ loolu léegi ñu ngi dem ba di ci defar ak nit sax far ay lamp lampe solaire am na léegi waaye nee na biddiw yi ngeen gisit ak asamaan seek suuf seeg guddeeg bëccëg yépp yàllaa ko tàggat ci ndigalam di leen def loo ñuy def di leen bàyyi loo ñuy ñuy bàyyi loolu nag ku ko gëm doo tiit mbindeef mu ne ci kaw suuf ni yow jullit yi nañ gën a dëgëral seen fit yi te gën a wóolu yàlla te gën koo doyloo te xam ne dee mi nga xam ne ma la ñëpp di moytu kenn mënu ko daw buy ñëw na la fekk ci ndig lu yàlla santaane rek aynama takunu yudrikumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum su ko defee nag eh, daw dee ci yàpp yàlla la bokk ci xeeb sa bopp la bokk yabaate la bokk yi tey koo xamoon ab numéro téléphone boo ko bësee te fekk mën ngaa woote te fekk mu taalab téléphone moom téléphone boobu buy dem xamut géej xamut jéeri xamut am réew xamut quartier xamut département xamut province ndigal li nga ko jox ci wol ma diw moom dana coow cooy ba fekk ko donte day nelaw dana def la mu a def bu yeewoo baax na bu yeewut su yeewoo battale ko diw doon na la woo kon ab jurit day loo yàlla te wóolu ko wax naa ko waxaat ko waaye da ngay dégg ñu daw li gone yi wax res naan diw dana xam ne moog diw ñoo ku séq te xanaa xamu ne bu ñu ci diw ci yow la jëm si nañ jëfandikoo li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon jullit ak moroom ja na mel ne cër yi ni cër yi mel ci yaramam bi su bëñ mettee léegi tey làmmiñ du saf dara bay lekk biir du soxla lu muy jot loxo du nangoo tibb tànk du nangoo doxi teg ca ne unsur axaaka zaliman aw mazluma sa mbokkum jullit bu tooñee na ko dimbali ñu ne ko waaw bu tooñee nu koy dimbalee mu ne ko da koy wax dëgg buñ ko tooñee waxaalewuñ ko yow moom luñ koy def nañ ko booleek yow def la ko ndax sa mbokkum jullita yàlla nu yàlla gën a dugal ci biir kaaraangeem te fépp fu noonu lislaam nekk mooy buñ xam buñ xamut yàlla na ko yàlla weer te toroxal ko ñépp teg ci seen bët te dëgg rek mooy mujj doole mën naa bari waaye lu mu yàgg-yàgg dëgg rek mooy mujj ak lu sew-sew te yonent bi ne la woon bu leen tiit bu leen jaaxle ñi ngeen ko séqal dañuy soj ngeen di soj dañuy siburu ngeen di sibbur ñuy tooy ngeen di tooy ñuy dee ngeen di dee te ñoo leen gën a ragal dee fuuf ndax yéen li ngeen am man ca teg seen loxo ne bu ngeen dee da ngeen ko am fekku leen ca ñoom wala tahinu fi ibtiqaai fi ibtiqaai alqawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun uh, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri almuslimin